tabaarakallah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mamor kon day mel ne leer na xam naa balay sëriñ Basiiru di wax noonu mu ko waxee léegi rek ngir yaatal ak kenn ku ci nekk mu jox la cër bi nga ci am xam ngeen ne sëriñ Basiiru mbakke Poroxaan mii ku xool toogaayam bi xam ne mënu ko waaye nag liggéeyub sëñ Tuubaa moo ko ko jaral ba comité bi tàmbalee ak léegi it sëriñ taxa boole woon ko ak Cheikh Mahamadoul Bachir amut benn yoon bum mu mas a joxe ngànt loolu nag te moom la way juróom wa waxoon rek ci lay dund mooy sama kilifa dama koy bàyyee sama bopp bàyyee ko boppam moo tax sëriñ Basiiru na ko doo ci mën a ñàkk yëkkati ay kàddu jëkk may wax kon sëñ bi loolu rek moo la ci dal bisimilah.